Georges Sadio maa ngi lay nuyu. Ah, maa ngi lay fay soxna si. Georges Sadio nga nekk ah, ci mouvement Agir ah, bu Thierno Bocoum nekk responsable politique foofu ca Thiès déjà ma lay laaj ci visitu Macky Sall bi nga xam ne def na ko semaine bi foofu ca Thiès ban jàngat nga si am. jërëjëf soxna si ñu ngi leen di sant ci seen invitation di nuyu seen auditeur ak internet yi nga xam ne aussi ñu ngi seen rajo. ñëw président de la république nag. ñaari jàngat lañ ci am benn bi mooy ñu ngi rafetlu ñëwam ndax quand kilifa la euh, kilifa gu toll ni moom buy ñëw ci dëkk lu ñu mën lu dul rafetlu ko euh, parce que quand dina am impact bu muy am dina am ay jeexital yi muy am ci économie dëkk bi dina am ay jeexital ay su am ci infrastructure bi kon loolu ñu ngi koy rafetlu waaye itam lu ñu rafetlu euh, xumbute yiñ ci boole ak yenn Euh, manifestation yi nga xam ni pour ñun jaru ko woon ndax tey Sénégal fi mu toll nii ak jafe-jafe réew mi fi mu toll defe na defe naa ni nga war a jël ay millions di ko dépenser ci ay mobilisation jëlee ay nit dëkk dëkk utiliser ay car jox leen ay xaalis ak i t-shirt pour ñu ñëw tàccu def ay mbumbaay ci dëkk bi perturber même circulation dëkk bi pour man loolu vraiment euh, ay ay caaxaan la daal pour ñun ñun pour ñun daal loolu moom dara jaru ko ci walla hmm. ñenn ñi di wax euh, tournée économique comme ñi féete ci gouvernement bi ñenn ñi jàppee ko tournée politique maanaam campagne bu ñuy waajal pour élection présidentielle yi pour yow Georges Sadio lan la si tournée économique wala tournée euh, politique man day dama li ma jàpp mooy tournée politique la léegi nag ñoom ñi fareek moom président xam nga nit moom danga nga koy nangul xalaatam itam ñoom jàpp nañ ni tournée économique la ñuy def mais man dama jàpp ni tournée politique la bu fekkee li may ci terrain bi loolu moo am man tey en fait loolu moom leen politique ndax tey mënumaa comprendre président bu fekkee day dugg ci biir réew mi yooyu yaay jiitu njiitu réew mi kañ kon c'est tout à fait normal de temps en temps ngay dem di nemmeeku citoyens yi nga bañ a yem rek Dakar kon loolu pour man du du événement bi war a tax président war a ñëw cees ngeen mobiliser dëkk bi yëpp fu nekk ngeen dem jëlee fa ay nit dugg ci àll bi jël ay nit indi leen ak coono boobu noonu yëpp pour tout simplement ñuy tàccoo ko tëgg di fii quiétude nit ñi pour man loolu wax dëgg neex yàlla jaru ko kon tournée politique la lii ay politique la donc loolu laa ko jàppee parce que en fait bu fekkee dangay def tournée économique kañ ñu ngi fàttaliku ni tournée économique amoon na fi président de la république defoon na fi conseil des ministres décentralisé à Thiès jëloon nañ ay mesures jëloon nañ fi ay ay promesses ay dige amoon na fi waaye loolu kañ bala ngaa ñëwaat nañ ko évaluer xam fan la toll ak fan la nga jëlee dëkk bi fa nga ko yóbbu en tout cas ci suñu ay coppite yu bari par rapport ak ñoom li nga xam moom lañ fi digg woon encore bu dellu siwaatee di ñu wax ni que tournée économique lay def ñun mënuñu koo gëm daal li ñu jàpp mooy tournée politique la moom fu mu toll nii day xool nu muy tàggatoo xam naa rek comme jeexal na mandat am xëy na day xool nu muy waxee au revoir population yi rek quoi loolu lañ jàpp. voilà euh, beneen laaj euh, Idrissa Seck ah, euh, am na kàddu yoo xam ni yëkkati na ko ci euh, conseil présidentiel bi ñu bëri nag jàpp ni sax euh, d'accordul ci troisième candidature Macky en tout cas bu ñu décortiquer message bi est-ce que yow loolu nga dégg ci kàddu ko Idrissa Seck waaw la déet. Oh, jërëjëf man soxna si xam nga Idrissa Seck nag lu waay di wax quand amal nañ ko njukkal ñun waa Thiès. mën nañ ni wax dëgg neex yàlla def na lu bari pour Thiès waaye man ay ay kàddoom tey amatul valeur boobu noonu ci man moo tax man duma ci commenter lu bari parce que Idrissa Seck quand lu waay di wax ak euh, fi mu jëlee woon cees ak fi mu ko yóbbu euh, mais bu ñu actuellement démarche politique am daal moom ñun ay kàddoom euh, du loo xam ne dina tax ñu ci yàq euh, suñu énergie daal moo tax man ay kàddu Idriss Seck euh, soxna suma ma sañoon daal. ñu xool leen lu ñuy waxtaanee ndax Idriss Seck fu mu toll ñun dañoo jàpp ni ci passé politique gu Thiès la bokk quoi. voilà ci kàddug président Macky Sall moom nag wax na ci wàllum investissement mille cinq cent milliards de francs CFA foofu ca Thiès beneen promesse lan nga si xalaat ci mbir moomu. <laughs> waaw bon euh, maa ngi jégalu ci kii bi. Mhm. Eh, eh, d' abord xam nga président moom daf ñoo tàmmali promesse tàmmal ñu ay promesse ñëwoon na fi def fi conseil des ministres comme ni ma ko waxee woon. Mhm. ñu promettre ñu def ay dige dem na gisuñu réalisation yi yi mu fi waxoon yëpp. ñëwaat na fi daaw ba mu ba ñu defee seen mburoog soow mu ñëw fi defati fi ay dige mu dem ñun en tout cas ñi ngi xaar ay changement xaaratuñu ay promesse xaaratuñu ay dige mhm. sonn nañ ci dige li ñuy xaar mooy ay acte moom na jëf ñu gis am réew mënuñ ko yor rek ci ay dige ay promesse di def ay slogan bu teyee nga wax yoonu yokkute bu subaa nga ne émergence loolu vraiment dafa doy ñun lu ñuy xaar mooy ay acte ay jëf ay réalisation pour que réew mi mën a jëm kanam Euh, candidature euh, Macky Sall pour élection présidentielle bu deux mille vingt quatre ñëpp a ngi koy laam-laame yow Georges si jamais Macky euh, ne dafay bokk est-ce que di nga si ànd doo si ànd ban gis-gis nga si am man man man man day lecture ma am mooy man dama gëmul ni sax Macky Sall dina nekk candidat suñu xoolee ci naka la def moom ba tey mu agsi ci fi mu agsi nii maanaam Macky Sall ñëpp xam nañ ni euh, moom ba muy ñëw fekk na réew mi ñëpp taxawoon dressé wu contre troisième candidature maître Wade moom bu fekkee ci circonstances yooyu la ñëwee te xam na ko loolu yàggul wax dëgg neex yàlla fàtte xaju fi moom ci jëmi boppam génn na une fois di wax ni que moom jeexal na mu ngi ci dernier mandat kon man waxam laay jàppagum li nit ñi def nag maanaam xam nga mooy li gars yi di météo politique man loolu duma ko duma ci tunku man li ma jàpp mooy président Macky Sall mi ngi ci dernier mandat am incha allah deux mille vingt quatre Sénégal day am beneen président bu bees et moom du bokk sax ci élection yi loolu mooy suma gëm-gëm. Hmm. ñu gis ne fi ñu toll nii ñu ngi wax euh, menace de libertés maanaam wàllum liberté euh, na waar wàllum liberté de manifester doy na waar gis nga fan yi ñu bëri ñu ngi leen jàpp tëj leen ci kaso bi parce que yëkkati nañ ay kàddu wala génn nañ pour manifester ñu si ëpp nag ci kujjeg politique bi la ñu di féete. ban jàngat nga ci am ci mbir moomu. jërëjëf soxna si d'abord nga may ma ma masawu euh, sunu mbokk opposition yi waa boo faree ci Pastef ci tere bi ñu tere seen euh, meeting bi waroon a am fële ca Mbàkke duñ ko rafetlu duñ ko rafetlu ndax euh, ñi fare ci nguur gi ñoom ñi ngi profité ci li nga xam ne ñoom moom la ñuy wooyee tournée économique bu président te ñun ñu ne tournée politique la di def seeni activité politique di mobiliser di def di wone seen bopp kon day jaadu itam ngeen bàyyi ñi nga xam ne àndoo ko ñoo ak yéen bokkuñoo ak yéen gis-gis bokkuñoo ak yéen xalaat ñoom itam ñu mën a dérouler seen ay activités en toute quiétude et que am na ñoo xam seen liggéey mooy ñu encadrer manifestation yi ñu def ko ñoom dajaloo woon nañu fële ca Kër Massar dara yàqu fa dara euh, yëngatu fa amul benn jafe-jafe bon nag bu ñu waxee dañoo bëgg a dajaloo waat fële ca Mbàkke war nañ leen mën a permettre ñu dajaloo man loolu damay jàpp ni vraiment ñii daal dañoo xaw a dese euh, nekk ay ay gentleman comme ni ñu koy waxee daal ci wàllu politique moo tax loolu man du ma damaa ngi koy dénoncé en tout cas euh, te du ma ko rafetlu maintenant concernant opposants yi nga xam ñu ngi leen di tëj loolu aussi mënuñ lu dul ñaawlu ko waaw parce que fii Macky Sall ba muy yéeg diwut nguur gi booba temps en deux mille 2011 2012 manifesté yu méttee métti daan na fi am daawuñu ko nag teree dañ ko daan am na repression certes daan am repression daan na métti trop trop trop trop sax mais introduction yii ñuy gis tey ak tëj ku bëri gi jàpp gu bëri gi vraiment euh, ñu ngi koy door a te ñu ngi koy ñaawlu. en tout cas du ñu ko rafetlu daal. Mhm. Euh, beneen mbir di euh, candidature Ousmane Sonko pour deux mille vingt quatre ñu bëri jàpp nañ ni candidature bi euh, mën na am lu ko gàkkal déjà mooy dossier Sweet Beauté ak tamit dossier diffamation bi nga xam ni moo dox ci digganteem ak ma mbay Niang ñu bëri jàpp ne nag buñ ko ci condamné boo moytul kon sonk du mën a bokk ci élection présidentielle bu deux mille vingt quatre loo si xalaat Georges. waaw jërëjëf xam nga pour le moment. Mhm. man pour man mënaguñu wax kan mooy bokk ak ku dul bokk encore est-il que nit ñi sax déposé guñu candidature maintenant lu jëm ci dossier Sweet Beauté Mame Mbaye Niang man dama jàpp ni ay sénégalais ñoo jote seen biir parce que quand il faut que l'on fasse la part des choses ay privé ñoo jote seen biir dem justice mënuñu tenir en leen dëkk bi yëpp tout le temps di ci dépenser énergie def ci débauche d'énergie bi ñu ciy def pour mën da koo jaru man candidature Sonko jàpp naa ni bu bu fekkee moom dafa bëgg a nekk candidat mais comme tout citoyen war na mën a nekk candidat quoi maintenant mënaguñoo wax kii mooy bokk ak kële moo dul loolu moom mënaguñ ci wax maintenant dossier suite boo teeg bu Mame Mbaye Niang damaa jàpp ni ñetti nit la concerné Sonko la euh, soxna soo suñuy wooyee Adji Sarr ak Mame Mbaye Niang gannaaw ñoom la concerné nañ dem lijjanti seen i problème pour le moment ñun Sénégal am na lu ñu doy dëkk bi jafe na métti na dund bi cher na euh, jafe-jafe yi ay scandale yi bëri na yoo xam ça concerne l'État ay nit yu ñu jox ay responsabilité ñu caxat caxatee alalu réew mi mm. defe naa loolu mooy suñu priorité mais pas ay affaire privée yoo xamante ne ay citoyen la considéré ñun man wax dëgg na xaal je considère que wax ci yàq sa énergie la dal waaw euh, peut-être euh, dernière question euh, élection yi ñëw na 2024 ñu bëri ñu ngi profiler di wane seen bopp ne carrément dañu bëgg a bokk mouvement agir moom naka lay préparer élection présidentielle bi dina bokkam du bokk dina am candidat waaw wala déet waaw naturellement ñun ñu ngi préparer aussi en conséquence li ma la mën a wax daal mooy élection deux mille vingt quatre yii di am du en tout cas ñun mouvement agir bu soobee yàlla nañ ci participer pleinement le président Thierno Bocoum en tout cas mi ngi waajal boppam mi ngi waajal ay nitam maintenant nag euh, li ni li wolof di wax kuy du sëqët waaw peut-être am na ñoo xam ne il préfère faire du bruit def folklore génn def kii ñun en tout cas ñu ngi liggéey sunu biir ñu ngi góorgóorlu di organiser wu xool nu ñuy tëggaatee suñu mouvement pour que deux mille vingt quatre incha allah ñu mën a participer pleinement aux élections de aux élections présidentielles. voilà Georgiou Sadio Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal ci sa disponibilité. waaw maa ngi leen di jaajëfal waaye nag bala maa tëj vraiment encore une fois rek ñuy woon nit ñëpp ci dal ci tekk ak tey ndax euh, ci xët-xët mënuñu régler dara ci réew mi donc ñuy woowaat nit ñëpp moo xam ñi fare ci nguur gi comme ñi ne ci l'opposition bi ñu gën a ànd ak dal ndax Sénégal benn bopp la ñun ñëpp a ko bokk ñun li ñu ñor ñun ñëpp mooy nu ñuy def ba Sénégal gën a développé gën a jëm kanam lool gannaaw loolu rek la ñu ñor ñun ñëpp nañu ànd ak dal ànd ak tekk ak tey te xool nu ñuy jëmale sunu réew mi kanam maa ngi leen sant ci leen di gërëm. Georges Sadio May fàttali bokk nga ci mouvement Agir euh, nekk responsable politique foofule ca région bu Thiès. ok jërëjëf soxna si ñu ngi leen di remercier. ma si ñu ngi leen di remercier.